gannaaw tension politique bi am ci réewum Sénégal jëlé ko nak niki Barkati dembu ci bi président Macky Sall dal day yëkëti ay cadeau xamlé né li di élection présidentielle yi ñaron amal dimanche ñaar fukki fan ak juroom ci wéru février 2024 dañu koy dal di toxal waral nak askan wi dal di woné sen mer jëmale ko rek ci président Macky Sall ak lamu bëgg gannaaw ba ñu bëri jappé né fim nekk ni day xalal yoon 3e mandat té lolé constitution bu Sénégal moko ko dal di ay ci ni ñu mel nak askan wi dal di tambalé di woné sen bop ñu gis fenn fo xamné kon ay fitna mu ngi fay tambalé di jolli niki dimanche bi ñi di opposition bi daldi won woon daje Saint-Lazare gi nek ca Liberté 6 ngir daldi di li di sen campagne présidentielle ci jamono jo xamné jamarlo sax la mujjé sen digganteeg ak der yi waral nak nguur gi daldi jël ay dogal tollu danaka ci ay millions yi millions yi sénégalais duñu jëfëndiko li di sen données mobile manam internet bi nga xamné ne dañu koy jënd ci sen puce téléphone lolé tàmbalee ko nak demb bi ñaar fukki waxtu ak ñaar jotee ci guddi gi maanaam vingt deux ci dimanche bi ci la état daal jël dogal ngir daldi restreindre manam dagandé gum li di internet bi ci téléphone bi gouvernement bi nak Daldi di confirmer lu ñu mel jaaré ko ci bataaxal bu ñu leen mëna liral té mu tuké ci ministère bi ñu dénk walum communication télécommunication ak lidi di numérique dellu xamle né gannaaw ba ñu gisee rek ñuy daal di ay message yo xamné ne dafay xiirtal askan wi ci fitna té ci tam di leen ñaax ngir ñu daal di jàmmarloog takk der yi indi lu ñu duppé walum trouble à l'ordre public manam salfaañe li nga xamné moy mooy dikki bi ba wi du ñu nekk ci jàmm lolé mo waral état bu Sénégal jël dogal ngir couper mbolém luy donné mobile jëlé ko dimanche bi yamo 4 février février 2024 bi 22 heures joté ñu fas yéene ko wéyal nag filet tension bi di wacc ci jamono jo xamné ministère bi ñu dénk walum communication télécommunication ak numérique d'aldina dina mbolem mboolem li di opérateur de téléphone yi nekk fi ci réew mi muy Sonatel di Free wala Expresso ba ci Promobile ñom ñep nañu fexé rek ba daal di ak li nga xamné mom di réquisition yi ñu leen di notifié kenn ko ci wul nak ak mom na xamné état dina daldi di rëq ndigam ñom ñep la ñu leen sant mooy benn bi mo moo nañu coupé mbollem luy réseau mobile ba nga xamné muy sénégalais bi tok ci këram sénégalais bi am ay yité ci téléphone am ba ci journaliste bi wala sax kenen ken du mëna jëfëndiko li di réseau mobile bi jëlee ko dimanche 4 février 2024 bi 22 h jotee fi ba ba bi di jël dogal ngir de di ko téggi wat buñu sukkandiko ci maître Moussa Thiam mi khatim communiqué bi tek ci tam di jëwriñ biñu denk communication télécommunication ak li di numérique